ci ab diir rek atte wërum kaayit wala daal di ñëw amal fa ay visite wala prisonniers yu ñuy indi lépp lañu ñu dakkaloon ñëpp toog ci biti di daal di lu gannaaw ba ñu xam leen ni ab lakk-lakk dafay am. parce que bi incident bi amee ki nga gis nit ñi dañuy génn. na tey ñi ñëwoon ci audience beeg yëpp daanaka ci biti lañ taxawoon. waaye dugg nañu defar nañu lépp ba mu baax sant yàlla daal. ci suba si la daal am ci tirbinal bu grande instance bu ndakaaru brigade sapeur pompier daal di am jàppandalu ambulance ak ay takk der yu fa nekk ñu daal di mujjee fay boobule lakk-lakk. bu ñu sukkandikoo ci ñu jege mbir mi nag ay branchement filu courant moo ko daal di waral bilan bi nag as tuut ci matériel daal di nañ koy ñàkk. kenn amu fa ay gaañu gaañu gannaaw ba ñu fayee boobu la lakk-lakk bi doon am ci tribunal bu grande instance bu ndakaaru foofee nag stock soxal dossier yu laale politique yu bari nag foofu lañ ko daal di denc ba ñu paree nag nangu ñëw àddu ci li ni mel boobule mbir nag mu nar a wëy di andi ay wax ndaxte langum politique bi du mu daal di mel ay weer lu nekk di ci daal di tukkee balaa boobu nag ñëpp ñoo ngi xaarandi euh, communiqué ñi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gàlloo ngir daal di ci andi ay leeral.